daa bëgg a mujje nag lu aju ci kuy bëgg a génn àdduna lañ koy defal ak gannaaw bu génnee àdduna lañ koy defal loolu la bëgg a jeexale lépp lu aju ci mbirum jullee ki waajtaayam mu ne bul fàtte ni kat ku mos dund rek ci dogalu bi yàlla da nga mos dee kon nag mat nay xalaat di ko waajal ndax mu bañ laa bett mu ne nag tawat sax taxuta faatu ndax ku àppam ak siwut du faatu waaye nag tawat daa bokk ci yi nga xam ne daana jiitu faatu faatu topp ca kon saa yoo tawatee rek da nga daal di yeesal sa tuub tuub tuub gu sell dellu ci sa boroom ñaan ko mu jéggal la ndax addis ba nee na attaibu min azambi kaman laa zamba la ku tuub bakkaar tuub gu sell day mel ne mësta jaar ci bakkaar kon farlu ci tuub tuub mel noonu saa yoo yëgee tawat ci sa bopp te nag lépp loo xam ne yàlla bëgg ko ci xolub doomi aadama nit ki rëy wala ñàkk yéene kenn la ko yàlla defal ci xéewal wala jëf te yàlla taxut maanaam ñàkk yéene yéene ju sell ci ay jëf wala bëgg ak cant ak tagg la bëgg kilifteef mbaa yi demee noonu daal lépp lu mu xam ci lu yàlla bëggul ci xol rek mu jéem koo raxas ba mu set génne xolam ci àdduna ak li ci biiram lu mës a tooñ nag doomi aadama yi mu taxaw temm ci delloo leen ko ku nangu woon alalam ci doole mbaa ci neneen mu fexe rek ba delloo ko alal ja bu fekkee ne kookaa ngay dund da ko koy delloo te jéggalu ko bu fekkee ne kooka génn na àdduna mu jox ko ña koy doon bu fekkee ña koy doon gisu leen mu saraxel ko ko bu dee beneen tooñaange itam ni ki yàqub deram ba dara itam na fexe rek ba jéggalu ko mu wàcc ko bu dee bor bum siqoo nag kenn itam tamit lu mën a fay fa saasay saasa mu daal di koy fay su fekkee am lu mu ko fay waaye loolu daa aajowoo waajal ndax day suuf suñuy jaay mbaa benn matériel it moom lay bëgg a wax ci way wee naa day bind aw kayit wu leer a leer bind ci yooyu yëpp day seet ñaar ñu maandu mu bind loo leen moom ci boppam li mu amee ci bor ak lañ ko ameel ci ay bor ndax lañ ko ameel ci bor bu mu jàpp na rek man maa ngi faatu lañ ma ameel amul solo war naa taxaw ñi nga xam ñoo koy doon ci gannaawam ba lépp luñ ko ameeloon rek ñu mën caa jot ndax seen àq ju leen yàlla jox ñoom way doon nii mu bañ a fàtte itam bu amee yu ñu ko dénkoon mu daal koy delloo mbaa boog mu leeral ne lii kat ay ndénkaane la na bañ a fàtte itam bu fekkee amoon na digganteem ak boroomam ay àq yu ko ca war ni ki xeeti asaka yoo xam ne ko yeexe woon mbaa xeeti kafaara wala xeeti nisar yoo xam ne moo ko warlu woon yooyu yëpp mu bind ko wax leen ñu génne ko ñoom ñay doon ndax bu ca farluwul rek mën nañ ko bañ a xam mbaa ñu xam ko ba noppi sàggante bañ koo génne ndegam yoon may na ko it ku def alalam ñetti xaaj benn xaaj bu mu sañcaa dénkaane bu moo fi jógee nàngam kon mën naa seet ndegam moom xam na ne amu ci bor mbaa lu koy gàllankoor mu wax ne moo fi jógee nañ ma defal nangam nangam mën naa seet yi nga xamee ni moom tuyaaba ji da koy fekk foofee ni ki sabablu ndox mu ñi mën di jëfandikoo ci béréb ak lépp loo xam ne rek njariñul yoon ci doomi aadama yi ñu koy jariñoo tuyaaba ji di ko fekk foofa mën na caa jëmale ab dénkaaneem na moytoo dénkaane naa su ma fi bàyyikoo nañu fab sama alal sàngam saraxale ma ko ñu ki defal ma ko nagu sarax mbaa tofale ma ko ak yu demee noonu na ko wóor ne kat xeeti saraxal ak yu demee noonu day aada rekk ju yàgg ci réew mi waaye lay sunna mooy ka faatule du tala toppatoo ay ñam dañuy sopp sax dëkkandooy ñoom toppatoo ay ñam indi fa kon nag bu mu ne su ma fi bàyyikoo waajal naa li ñu may saraxale ba noppi ak yu ko nuru nu nar a jëmali ci sarax ak yooyu rek na ko jëmali ci leneen lu am tuyaaba loo xam ne foofee mu jëm tuyaaba ja da ko fay fekk ci mbooleem xeeti jëf yu baax yi nga xam ne doomi aadama yi dañ ci mën a jariñu ca gannaawam lu aju ci wàllu saraxal moom na ko bàyyeeg ñiy dund rek ñiy dund ñoo ko aadawoo te li ci ëpp faaw daañu fexe ba jagal ko waaye ñoom itam nag dañuy moytu fab alal li ko faatu di ko def ca sarax sa lu may nag nga xam ne ña war a doon ñoom ñëpp ay mag yi jëmm lañ ñu mën a wéeg seen bopp kon buñ juboo ci fab ca alal yi doona ja def ca sarax sa loola baax na waaye bu xasee am nag ay jigéen ak i gone yoo xam ne mënuñoo wéeg seen bopp kon bu ñu sañ a fab alali ki faatu di ko def ca sarax sa moom yëg ci boppam ne mi ngi bëgg a génn àdduna nay bari la tudd yàlla ni ki alhamdulillah sant yàlla ak jéggulu ko astaghfirullah ak rabbi xfirli ak bari la julli ci yonante bi rawante na bari la wax la ilaha illallah ndax mu mujj ci aw làmmiñam dañoo nett li ci addis ba ne koo xam ne lam mujj wax ci àdduna mooy la ilaha illallah faaw àjjana lay dem kon nag bari nga wax laa ilaha illallah ak julli ci yonante bi moom lu mu ko baril rek na ko xeeb ba tey na jàng ñaanu yunus ga mooy laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min az-zalimin na ko jàng ñeen fukki yoon suratul raadi su ko mokkalee mbaa mu am talub man koo xool jàng na ko jàng xam nañu wax ne suratul raadi day yombal génnug ruuga saarul ixlaas moom it na ko jàng waxoon nañ ca net lii ne ku tawat jàng saaru lixlaas muy xul huwallahu ahad yetti yoon bu faatoo ca tawat joojee kenn du ko laaj ci bàmmeel sóoratu yaasin it na koy bari la jàng ndax yaasin moom day bari ngëneel lool hadis ba nee na yaasin qalbul quraan wa innaha shifaun min kulli daa ba tey am na fuy nett leene yaasiin lima xuri at ay lima xuri at la maanaam yaasiin mooy xolu alquran teyit des na ko saafara jëpp jàngoro manees na ne sax lu tax nga jàng ko rek mu dal cee féete maanaam lu seyte rek mën ngaa jàng yaasin ndax jublu ci yàlla defal la ca la ca gën yàlla defal la ko ca incha allah na fexe nag ba rafetal njortam ci yàlla boroomam lu bakkaaram rëy rëy bu mu tax mu naagu yërmande defe ne yàlla du jéggale lu tol noona sun borom moo ne laa tay asu min rawxillah bu leen naagu yërmande yàlla innahu laa yey asu min rawxillahi illa al qawmul kaafiruun ku wedd yàlla rek mooy naagu yërmandeem la gën a neex a déggati sax mooy qul yaa ibaadiya alladina asrafu ala anfusihim laa taqnatu min rahmatillah inna allaha yaxfiru dunuba jamia innahu huwa al gafuru rahim yéen sama jaam yi nga xam ne da ngeen a jégg dayoo ci def lu ngeen warta def bu leen naagu sama yërmande ndax man bàkkaar yépp lay jéggale kon nag bu yëgee ci boppam luy nuru ak naagu nay jàng laay yu mel noonu ndega mën na koo jàng mbaa boog ña ko xam te gis ne moom mi ñaaw na njort ci ëllëgam ñi di ko wax rek luy tax mu rafet njort ci boroomam ndax la addis ba ne man sama jaam lam jort ci man rek ci laa koy fekk ana xinda zanni xabdi bi falya zunna bi macha na jort ci man daal lu ko soob waaye na waaye daal la mu jort ci man rek moom la fi fekk kon na rafetal njortam rek ci yërmande yàlla ak njéggalam ku fa nekkoon nag xool kanamam mu mel ne ku soppiku jëbi di ñaq tekkal la ci ne ak génnam àdduna soreetul ci waajtaay la toll ñoo bëgg ne yooyu jamono ku fa nekk nga di ko sax seeres ashhadu an laa ilaha illa allahu wa anna muhammadan rasulullah ndax hadis ba dane laqinu mawtaakum laa ilaha illa allah dee leen sax seen way faatu laa ilaha illa allah waaye nag nee nañu doo ko wax ne ko neel ashhadu an laa ilaha illa allah da ngay dend ak moom rek di wax laa ilaha illallahu su ko waxee rek nag nga bàyyi ndax loolu mujj ci aw làmmiñam su fekkee waxoon nag waaye waxaat na jeneen wax ju bokk ci àdduna nga dellu baamuwaat laa ilaha illallahu ji ndax mu dellu waxaat ko ndax mu mujj ci aw làmmiñam xab bi doo gisee ne moom mii kat màndargay faatu feeñ na ci moom ndax bët yi xàjjiku na da nga koy jéem a jëmale xibla su fekkee mën naa tëdde wetu ndey yoor kanamam jëm xibla da nga koy tërale noona su fekkee nag jaaxaan rek la man kon da nga koy tëralte ay tànkam jublu xibla su faatoo ba noppi nag da nga daal di wut lu mel ne ab morceau mbaa sarbet bu ndaw ngaaw ko ca bopp ba mu jàpp ci yaxi sikkim yi dañuy bañ soo ko bàyyee na gimiñ nga ubbi ko woon rek bu yàggee du mën a ñebati waaye nag boo gaawee jël lu mel ne ab morceau takk ko ci bopp ba mu ñëw nag ba ngaawaale ñaari yaxi sikkim yi nga xam ne na mu ubbi ko woon dañ na loolu sopp nañ ko waaye lépp loolu lépp rek nga def ko ndànk te it da ngay bàyyi ba mu faatu ba noppi nga door koo def bul gaawantu def ko te fekkul mu faatu ba noppi sopp nañ itam nag foofee mu nekk di waaj a génn àdduna lu malaaka bëggul rek sori fa bañ faa nekk di ki jigéen ju toll ci gis baax wala kenn ko amee janaabati sanguut mbaa lu mel ni ab estati mbaa lu mel ni ab estati mbaa lu mel ni ab xaj mbaa lu mel ne jumtukaay bu ñuy photo lépp lu malaakay bañ rek dañu bëgg ñu soril ko mu bañ faa nekk te nag la malaaka bëgg muy xet gu neex ñu andi ko fa fexe ba foofa xet ga neex bu faatoo ba noppi daañu sopp nga jël lu xaw a diis te bañ a diis bopp teg ko ci biir ba ndax mu bañ a newi yaram yi bañ a sadd fi saasoy saaso itam bu dee door a faatu na ngay nooyal tànk yeeg loxo yi mooy da ngay bank loxo bu ne di ko bank tàllal di ko bank tàllal tànk it noonu tànk bu ci ne nga di ko lemaka lemaat di ko lemaka tàllalaat boo ko tàllalee bank ko boo ko bankee dellu ko tàllalaat loolooy tax yaram bi nooy ba bu ñu ko dee waajal di ko sang mu yomba sang yomba wëlbati yomba solal ay yére waaye nag buñ ko deful noonu lépp day def kàdd rek nga xam ne boo ko dee sang mu am jafeñ-jafeñ boo ko bëggee solal ay yére itam noonu waaye nag yooyu yëpp doo koy def rek nga def ko ndànk ci ñëwante ak yërmande ak ak teey waaye bul ko defee ak ëppal